équipe nationale Sénégal dafa tënku ci jongante ba doon dox digganteem ak Guinée aljumay tey jii euh, Sadio Mané àdduna ci ndaje boobule ñu jeexale ci 0-0 ci micro sunu waay naataango euh, muy xamle ni du waxtu wu ñu war a bàyyi donte lañu fa def baaxul am na ñu yéene ni jongante danañu jéem a defar seen ndajeek Malawi euh, du ñu tekk seen bopp pression dañu war a gëm seen bopp di xalaatee fu baax du fii la yem ndax dañu am lu leen yëkkati gannaaw loolu nag Pape Gueye ay simili laata jongante Sénégal ak Guinée avocat wam moo xam ne woon ni daal Pape Gueye ab problème administratif la am euh, ñu yëgaloon leen ko rek ni FIFA suspendre na ko ñeel ab transfert diggante club Marseille ak a euh, looloo war a rek ñu génnee ko ci feuille jongante bi ni ko entraîneur gaynde Sénégal yi Aliou Cissé birale euh, mu di ci dolli naan la ko suspendre du laale dara ci match bu njëkk ba ñu doon janook Zimbabwe Watford saytu Watford nag jébbal na recours ca chambre de résolution des litiges ba ñu dénk rek lu jëm ci wàllu wile ni ko AFP ma yor kàdduk FIFA di xamle démarche Watford bi nag ma nga soxal club marseillais beeg joueur bi toll ci ñaar fukki at ak ñaar OM recruté woon ko rek ngir ñeenti at ba nga xam ne nii mi ngi woon ci njeexantalu contrat am ca Havre di club formateur am FIFA di ci dolli naan dossier baa ngi wéy moo war a mënuñu ci at doogum ancien U18 ak U19 français bi jot na def fukki jongante ñaari saison yu mujj yi ak club bu Norman ñaar fukk juróom yi di ci lig 2 ci exercice su 2019 2020 mbas mi dakkaloon ko ah, ci njeexantalu weeru avril atum 2020 Watford dañu rekk biraloon ab signature ah, ngir juróomi at li ko dalee 1er juillet waaye daal si diggante bi Gueye daf ko dakkaloon. Euh, si jongante boobu lee doon dox diggante Sénégal ak Guinée ni ki tey si aljuma ji Aliou Cissé daf ci amaloon ay coppite yu bees euh, ba nga xamee ni nag ñàkk na ñaari titulaire ci bile match mu di Idrissa Gana Gueye ak Fodé Ballo-Touré euh, Keita Diawo Baldé ñu yóbbu woon ko rek ba mu remplaçant yi Saliou Ciss jëlaat place am ci poste latéral gauche bi milieu terrain ñu amoon fa rek ma Loum Ndiaye mu àndoon ak Cheikhou Kouyaté gannaaw ba fa Gana newlee onze bi di woon rek Seny Dieng Mbaye Abdou Diallo Ciss Kouyaté euh, Loum Ndiaye Bouna Sarr Sadio Mané euh, Mame Baba Thiam ak rek Boulaye Dia